képp ku am commentaire boo bëgg def ci bépp série sénégalaise que ça soit mu nekk Mœurs Madior ak Dior Idole bépp série bu mu mën a doon wala nga gis loo xamante ni dafa am ci réew mi ñu war cee wax mën nga ko envoyé par vocal ci numéro bii di affiché numéro bi nag amul group képp ku am loo bëgg a wax da nga koy yónnee par vocal ñun incha allah buñ ci jotee dinañ ko jàllale parce que lu xew TV ñun ñëpp ñoo ko bokk. te bu leen fàttee abonné wu di partage vidéo yi ngir liggéey bi gën a mën a yaatu. lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp di nuyu téléspectateurs yi leen di seetaan ñëpp partout dans le monde entier di leen wax ne ñu ngi lu seen liggéey bu baax a baax a baax parce que lii moom lu nice la waaw man moom juste que dama bëgg a wax rek ci épisode mars euh, saison 1 bi épisode 35 bi démb c'est dafa nekk loo xamante ne nii dafa am ci société bi te nit ñi duñ ci bàyyi xel duñ ci wax et souvent dañuy nëpp nëppal naan famille bi wala genre affaire yooyu et que pour man il faut que sa cesse loolu dafa wax jeex ci ci ci àdduna bi euh, parce que comme ni ma dégloo vocal bi kooku num ko waxee rek des fois ñu gis ni di ko juger alors ko xamuñu lu muy dund au fond comprendre nga. ayda li muy dund nii ci série bi nii am na la majeure partie yoo xam ne jigéen ñu bari ñu ci monde bi tey loolu la ñuy dund waaw parce que man moom bi ma doon seetaan série bi ba si foofu j'avais tellement euh, j'étais tellement abattue je je pouvais plus au fait me retenir les larmes coulaient waaw mooy loolu quoi. comme si que man je l'ai vécu alors que tel ne pas le cas aussi mais je si suis juste mis à sa place si c'était moi comment j'allais faire comment j'allais réagir est-ce que moom ni mu ko supporter nii est-ce que dinaa ko mën a supporter wala suy fekkonte ne keneen la dina ko mën a supporter noonu xam nga am na ñu bëri tey seen àdduna yàqu na lii moo ko yàq te tamit damay wax ne pour maman yi tamit nañu bàyyi xel bu baax seen doomu jigéen ñi ndaxte comme li Aïda lu mu expliqué xaritam mais finalement dafa dem ba dafa ailleurs maman parce que il ne prenait même pas la peine de voir la tristesse qui se cachait derrière waaw si son comportement genre et tout moom li mu doon xool lépp mooy c'est pas que ne que am nga doom dugal nga ko ci école bu baax ci lui paye habillement yu baax lépp lu mu bëgg nga defal ko ko kenn amul souci non non parents yi dañu wax a bàyyi loolu parce que l'argent ne fait pas le bonheur sa doom war nga ko yar de tele sorte que su toogee am lu ko metti rek en le regardant ci dois savoir que ne aujourd'hui ça ne va pas mais malheureusement le Sénégal yaa parents yi taluñu ñu lu dul xew ndayale magale dëj fu nekk lañuy dem léegi dëj yi sax dañ koy jël def ko xew yaa ngi comprendre loolu daal nekk na loo xam ne metti na ma trop trop trop wallahi bi ma ko seetaanee moom metti na ma trop trop am naa lu ma metti ci sama xol waaw metti woon na ma lool sax mais nag comme que euh, instant bi lu xew ci bi mu ngi fi savant va nous lépp lu ñu am pour wax ko dinañ mën a jàllale suñuy message et di leen remercier tamit ndaxte lii moom initiative bu baax la ça va nous peut-être suñu yaay yi dinañ si jot dinañ si dégg dinañ jéem a xoolaat bu baax seen toogaay mhm. te xam ne doom bu jigéen moom soo ko yoxee war nga ko toppatoo di ko xool ci fan lay dugg lu muy def comportement am ak euh, lépp lu ko jot rek war nga ko xam nga protéger ko waaw mais san ba va pas dire que ne elle s'habille bien elle mange bien elle dort bien elle n'a pas de soucis non tel n'est pas le cas parce que des fois nit euh, comme niñ koy waxee rek. nit dina la ree regretter que elle fait partie parmi les plus heureux alors que tel ne pas le cas elle est la plus malheureuse ou le plus malheureux donc loolu tamit il faut que parents yi bàyyi ci xel quoi di waxtaan ak seen doomi di xool lan moo leen metti di xool waaw ce qui se cache derrière seen silence des fois am ñoo xam ne duñu wax genre et tout loolu yëpp dañ ci bàyyi xel waaw merci beaucoup kontaan naa trop E maa ngi jégalu tamit si wax ji su fekkee am na loo xam ne baax na ci ñu xam ne du ci man su fekkee am na loo xam ne tamit euh, tegginuwul maa ngi jégalu képp koo xam ne di nga ko lire wala di nga ko diggu après maa ngi remercier ñëpp franchement merci beaucoup. di wax ci sëriñ mœurs boobu ki ñuy wax ayda waa Aida moom dafa dund lu metti ci këram seen kër dafa dund lu metti waaye surtout nag ñun tamit am nañ jigéen ñi am nañ ci part de responsable ndax sa yaay war na la di seetlu xanaa man tamit damay wax ne xanaa moom it jour yi papaam daan nekk ci kër ga di tëdd moom xanaa daawul fanaan yaayam walla yaayam daawul fa nekk man loolu laa bëgg a xam moom it dund na lu metti nii rek la mënoon a def waa tey mënul woon di dund di dund di ëmb ak doom jooju doom joo xamante ne yéen ñaara bokk benn baay neexul daan lu nag ci kàddu yi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ñëpp képp kenn ci yéen di leen ziar waaw di kontaan bu baax a baax ci yéen yéen def am na njëriñ trop am na solo waaw di wax nii dama am lu ma bëggoon wax tuuti si série Mœurs parce que doon na série bi nga xamante ne nii wallaahi mi ngi jëriñ nit ñi si côté bu nekk parce que aw na yoon te am na solo trop trop trop mosaguma seetaan série bu mel ni comme comme moom quoi parce que damay kontaan bu baax a baax série boobu parce que surtout si cas bu ñu toll nii muy kaaw Aida bi doon na cas bi nga xamante ne nii. jëraa na jëree naa si jàng lu bëree bëri bëri bëri sama àdduna parce que bu gis nit mu yara yenn genre comportement yi rek nga foog ni jikoom la te foog te wala àdduna moo ko yàq wala dafa yàqu te ni lu kii daal mooy lool parce que Oumy boo seetee mos na ko juñ si affaire bi mu ni Aida mooy fu ko Aida waxee ni ko sama problème yàlla sax mënu ko mooy si dara kon yéen bu si jëm dara foofu makasin ba kay kii wax ba kay ménga di wax wax na ko si biir nee na ko Aida Aida yaa am problème ay dafa am problème bu leen foog ni ay fi un fii wala ay lii la wala li mooy affaire yi comme ça nii dañ kaa war a suivre bu baax Aida dafa soxla ku ko waxtaanal bu baax Aida dafa am problème ñoom ñu jàppee ni dafa réew wala ayda dafa am lu ko kii mais tey lépp leer na te damay kontaan si moom bu baax chaque fois parce que dafa mën rôle am da bu baax a baax a baax dafa ku am kii la si film daal da kii dafa jox cër lu muy liggéey jox na ko cër bu baax a baax mooy même du moom kese bëri si film bi bëri na si morom mooy si wallaahi ay jàmbaar ñu nekk ay ndaanaan moo tax dama leen ñaanal bu baax rek di leen ziar rek di te di yàlla bu baax a baax di wax ca kaw ca kanam rek wallaahi. <laughs> Eh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum lu xew ci TV waaw man numéro bi dama doon dugg kii euh, vite rek ma doon téléchargé benn vidéo mars ma gis numéro bi ñu koy affiché ñu naan numéro bi soo buggee def commentaire ci série wala leneen dangay soo buggee commenter dangay jaarale ci numéro bi waaw. mu amoon ci na kontaan ak mbégte bu baax a baax ndax série mœurs bi moom bu ñu suivre la waaw ak yeneen série quoi mais série euh, mœurs bi moo ci gën a ëpp doole quoi ndax ñoom lu ñuy joué lu ci ëpp am na réalité quoi mais surtout ci kaawu Aïda bi ak paa bi ñooñu moom lu ñu ci joué loolu loolu moom daa def important quoi waaw Aïda moom mu joué non ça extraordinaire quoi bon ñoom moom maa ngi leen encouragé quoi ñoom ñëpp waaw mais nag après léegi dama ci kii quoi mais après dinaa defaat ay yeneen vocal yu kii quoi waaw mais maa ngi leen encouragé nag bu baax a baax ok merci salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa man nag ginaaw bu ma nuyoowee ba pare si temu ayda bi rôle bi mu joué dafa am importance si moment yi ñu toll nii nii nii parce que Aida li mu dund nii nii bari nañu koy dund di ko demaale te mën nañu koo wax parce que lii dafa metti papaam ji bari na si moroom yoo xamante ci lii la ñuy dund ak seen doom yi mais risque bi ñuy jël nii pour defence seeni rakk wala ñu défense keneen mooy waral Aida poussé wu bari nañu koy dund trop trop trop sax affaire bu metti la te bi dañu war a taxaw xeex loolu pour mu dañ bari na ci biir kër yi bari na ci biir kër yi lool lool lool lool. salaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu siyaar bu baax a baax di leen déglu takkoo takkoo Lu Xew TV waaw damaa gis seen numéro bi yëpp ma bëgg a participer daal euh, ci série yi am Sénégal léegi ma bëgg ci joxe sama avis sama idée. Euh, maa ngi wax jëm ba Espagne wax dëgg yàlla seen liggéey bi rafet na bu baax a baax te dinañu permettre ñu wax suñu xalaat daal ak suñu soxla ñoo ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax waa man sama kii nag dama ciy dem ci ayda mars mooy femme boobu mujjee génn ci kii bi ci série bi wax dëgg yàlla bi ñu koy doog a gis nit ñi di critiquer kii dafa bon kii dafa li dafa laa lool day day dafay jàngal Sénégalais nit doo ko gis rek ba nga koo juger ci comportement am wala nga koy juger kii dafa bon dafa lii ndax nit ki ci nekk li ngay def am na lu làqatu ci ginnaaw daal lu waral ngay def loolu loolu nag ñoo jàngal ko maanu ci boppam dafa waraa dafa baax wala bala ngaa bala ngaa gis dara di wax nga dal nga xool ba pare xool na lii lan moo ko waral kii lan moo waral muy def lii bala nga ko juger que naan dafa bon que dafa lii dafa laaw te sénégalais dafa tàmm ko su gisee nit rek ci comportement mi dafa bon kii dafa bon dafa lii dafa laa fekk ne amaana mën naa bañ a nekk sax nit ku bon mais lañ koy def wala li mu dund poussé ko ba muy def lu bon moo tax pour ñun sénégalais ñu bàyyiwaat suñu xel bu baax a baax a baax di bàyyi di juger nit daal di bàyyi di juger nit que dafa bon dafa li maanu dafa baax ci doomu aadama nit dafa war a maanu daal waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di jaajëfal bu baax a baax waaw lu xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare série bi moom série bi doon daw démb moom neex na série bu daw yaram la sa baay bi la jur su la manee di la sàkku di la def loolu lu ñaaw la te am na ci suñu société bii am na waaye nag jabari monsieur le moom ku xam àddina te ku am xel yàgg na leen a wax xool leen di ci ginnaaw li tax mu di ko def nit buy def dara danga koy jàngat di ko xool mais doone rek wéyu la bàndi la muy góor muy jigéen naa ah, nit ki moom buy def yenn yi rek may ko xel jàppale ko waxtaan ak moom mais boo nee bandi la dafa bon même sax kuy naan sàngara wala ngay tux rek am na lu nekk ci ginnaaw lu tax lu la koy def loo waxuma laa jigéen di xale te njëkkewuloo ko kon daal yeete la rek kenn ku ci nekk boo yoree njaboot rek du xool ni série bi di def daal nga di ko xool. asalaamaaleykum waa lu xew TV maa ngi lay sant maa ngi leen gërëm ci rôle aéré bi maa ngi koy sant si gërëm si munu lu ma liggéey dafa ko mun bu baax baax parce que ba seetaane si kii ba seetaane théâtre bi épisode yi dañu garaaw ba seetal nu mu jaar jaar ak épisode bi. bi mu génn ci li danga yaakaar kii dafa réew wala kii dafa ñàkk yoretu fekk am na lu mu yoon nit nag boo xamul li mu yoon doo yeeg diisaay bi wante dafa mën a rolaan bu baax a baax maa koy félicité bu baax salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di leen di félicité si série bi série bi neex na neex ma torop macha allah mais ayda nag lu muy dund lu mu doon dund métti na torop torop te nit ñi xamuñu ko parce que lu mu doon dund kum kum nekkoon tamit di nga xool solution ndeysaan nit ñi dañoo tegoon ne Aïda defa bon di dox di taxawaalu di naan di tuux affaire yooyu noonu ndekkate yu am na lu nekk ci biir. te bugg koo wone bëggul kenn xam daal ndeketoo moom lu métti lii lay dund ku nekk nag war na ci bàyyi xelam nit ki bala nga yàq deram mbaa nga toog fu nekk di ko waxtaanee il faut dangaa war a xool ba xoolaat bu baax lu tax muy def loo xam ne mosu koo def waa cher bi nag neex na trop nag neex na trop maa ngi leen di félicité bu baax a baax nag. salaamaaleykum salaamaaleykum maa leen di waa Lu Xew TV yëpp yëpp ko fay liggéey maa lay ziar. di waaw man nag euh, bëri na seen kii sketch yoo xamante ni dama koy seetaan man maa ngi tudd Ahmed dëkk Tiwaawan seen sketch yu bëri dama koy seetaan mais Mor man dama cee seetaan Aida moom rôlam da ngeen cee def lu graaw loo xamante ne lu extraordinaire mais rôle bi fa mu gën a neexee ñu neen ko faa dagg éliminer ko carrément ndax benn ins mu ñu naan rakk ji man lépp luy mitit lu nekk rek danaa ko tegoo ngir yow ñun dañu ñun sabab boobu noonu mu def noonu waro waroon naa àgg ba xam ne dëgg ji day feeñ dëgg day feeñ mu bëggoon nag ñeen eh, baaxe ma dëgg sabab boobu noonu lu tax àggalewu ko àggalewu ndax man dama leen di békki saa su nekk na waa di la yow mi ñuy dugal eh, numéro bi ci kii bi ba tax ñun ñu mun cee jot ba mun ñoo bokk ci groupe bi daal ñu leen di ziar na di leen jox waaj waaj def bàyyi ngeen ci jàmm bu baax ça va ah man damaa ngi sant tam mais wax dëgg yàlla neex na surtout ma bu ñoom aana bi boobu daf ma neex tellement wax dëgg yàlla ndax dinañ ci am na suñu histoire yu bari surtout ma bi bu xale bu jigéen bi mu yàq bi mu yàq mujj ci daan même cas boobu am na ci beneen ay même yi fi yoo xam ne nit tey jii dinañ say parents dinañ jël euh, ma ne indi la nit ki ne diw mi laa bëgg nga sëy moom après boo sëyee moom yow da nekk di trouble di wax def ne ñu naan kii dafa bon dafa naan fekk na ba nit ki ngay sëyal nga bëggul wala moom si nga nekk di sëy ak moom nekk di mooy def na ko su dul noonu yooyu yëpp daal nga nekk di ko def ci biir sëy bi te fekk na li waral loolu lépp yow bëggoo wala lay dëkkale ko bon naan dangaa bon dangaa nangam fekk na du loolu lépp nit ki ci boppam nga bëggul wala fu mu waxee tey jii day nit ki xale góor bi la may dina la defal lu ne dina defal lu ne saat dina waaye du tee daal yow ki nga bëgg rek moom ngay xool en temps moom ngay gis chaque jour moom ngay gis. O da Allah ne için bu